am benn benn benn benn voilà du am benn conséquence euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy def alors que bu euh, capitaine Touré moom amoon na conséquence. waaw xam nga procès verbal bu fuitee rek c'est ñi ko bind ñoo bëgg mu fuite. Mhm. am na lu ñu bëgg loo xamante ni dañ koo bëgg mu egg ci askan bi mhm. liñ ci jublu soit. mooy euh, peut-être gën a chargé nit ki nga xamante ni ñu ngi ci ci kawam ak yooyu <coughs> parce que combien de fois gis nañ fee ay PV yoo xamante ni PV normalement warul atterrir ci presse bi mais tey à travers les quotidiens da ngay gis PV yoo xamante ni boo bu fekkoon auditionné nañu nit ki démb tey jii xam nga à l'aube ñëpp journaux yu bëri commencé ko bind c'est que euh, c'est fait à dessein parce que loo xamante ni moom c'est censé être secret nga ñëw tas ko ci ci yenn quotidiens yi parce que am na loo ci jublu et donc loolu moom du du lu bees fii ci ci réew mi te dañ koy def pratique la yoo xamante ni ñoom Euh, dañuy def lu leen neex parce que audition yi am na yoo xam audition normalement warul nekk sur la place publique arrestation yi aussi di nga ko waxee on voit également que euh, du côté de Pastef la arrestation yi ëppee mhm. euh, loolu nag lan moo ko indi parce que à chaque fois ñu gis seen responsable yu bëri ku ci nekk comme ni ma ko waxee rek à l'entame ñu bëri ñi ngi dénoncé di wax ni ñi ngi leen convoqué patiti patita mais bon est-ce que tamit Pastef a xëy na dañuy wàcc ci mbedd mi ñoo xamante ni sax ñu ngi leen di signaler naan da ngay gis seen parents yi daal ne ñoom bokk ñu woon ci manifestation xëy na dañuy jaar ci yoon boo xamante ni yooyu xew na fa ñu boole leen raafle leen ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàcc ci mbedd mi yëpp mais li ñu mën a retenir rek mooy ci Pastef la ñu ëppee cible bi moom foofu la ëppee léegi nag état lu mu ci jublu li mu ci jublu aussi xam nañ ko parce que fi mu nekk nii comme euh, opposition bi bëri nañu membre opposition leader yi bëri nañu mais Pastef moo leen gën a sonal Euh, parti Pastef leen gën a sonal ba nga xamante ni bu genre manifestation yi amee d'autant plus que Ousmane Sonko tamit dafa woowoon xale yi nañu wàcc ci mbedd mi résister mais loolu lay def lu dul cible leen parce que danaan comme moom moo leen woo ce sera une occasion également pour ñi nga xamante ni ñooy seen certains leaders seen yenn responsables et tout dem arrêter leen pour peut-être euh, ci élection yi nga xamante ni koy dëgmal ak yooyu jéem a wàññi seen doole jéem a wàññi seen euh, fugg bi nga xamante ne am am nañ ko ndax boo xoolee euh, du côté des autres leaders amul kenn koo xamante ni mi ngi mi ngi wàcc moom également ou bien ses militants ak euh, ses sympathisants ñi ngi wàcc di def comme waa Pastef ni ñu ko defee donc man je parce que Pastef moo leen gën a sonnal ci opposition bi looloo tax euh, cette série d'arrestation ñu gën koo nemmeeku ci camp boobule. Mhm. ñu ñuy xamal Libération moo joxe information bi que Dakar rek am na 247 personnes mhm. yu ñuy interpellé en marge de des manifestations euh, par des informations judiciaires euh, Georges Nessa est-ce que nekk ñu di dund ay ay dérives parce que plus de 200 personnes quand ñu jàpp leen tey ba tey ni Mambiram li Mambiram wax aussi lu lu lu jara taxaw la mooy que ñu ñu gisoon ñu yoroon ay jaasi. bien que bu ñu nuwee sax dañuy protéger seen koñ wala seen kii amuñu si benn sañ-sañ ñooñu dégg ñu si seen côté benn arrestation ni enquête boo xamante ne da leen visé. ah mais situation bi fu mu toll nii moom eh, ku mu jaaxalul sax da nga nekkul eh, da nga nekkul sénégalais wala da nga xamul lu xew eh, lu xew ci dëkk bi mais dañuy dund situation boo xam ne quand même dafa dafa doy waar. te ñu ñu jàpp ñooñu ñëpp la majeure partie mën naa la wax ne peut-être les 60 pour cent. alors wala les quatre-vingt-dix pour cent c'est des gens yoo xam ne dañ leen ne si opposition bi la ñu parce que ba léegi dégguma dañ leen farale leen farale si opposition bi. Mm-hmm. dégguma si kenn koo xam ne dañ ko jàpp ne euh, si Benno Bokk Yaakaar la bokk wala en tout cas si coalition seen coalition wala si benn parti boo xam ne si Benno nga bokk. Mm-hmm. loolu mooy loo xam ne dafa doy waar. donc euh, dafa mel ni léegi sax euh, bokk si opposition bi fii Sénégal c'est un délit. Mm-hmm. et principalement le le parti Pastef n'est plus considéré apparemment booy seet sax mënatoo ko considérer comme un parti politique mais comme une association de malfaiteurs parce qu'il est traité comme une association de malfaiteurs exactement la même chose bu kenn waxee ñu jàpp la boo kii ni ñu jàpp la waxuma nag ne defuñu loolu loo tax ñu ñu leen di jàpp parce que am na si ñoo xam ne euh, peut-être dañoo déclarer wala ñu wax loo xam ne jéggi na dayoo ba ñu ba mu tax ñu mën leen a woote. raw Suzanne Camara <laughs> waaw. donc euh, loolu nag koo xam ne da nga nekk euh, si si parti boobu am na ñoo xam ne dañu def déclaration yoo xam ne encore une fois peut war ñu fa woon yegg c'est vrai que du ñoom ñëpp ñoo du ñoom rek ñoo koy wax parce que dans l'opposition aussi am na ñuy wax <laughs> man encore une fois tous les jours damay déglu damay déglu seen seen i wax damay déglu lu ñuy déclarer ak yoo xam ne sax seen ancienne déclaration yoo xam ne ça mérité aujourd'hui que ñu woo leen euh, waxuma tëdd leen kat sax mais au mois ñu def leen garde à vue ñu laaj leen lu tax fan la ñu tegul seen déclaration donc vraiment euh, yéen a ngi koy wax léegi euh, enseignants yi ñu ngi leen di tëj élèves yi ñu ngi leen di tëj. Mhm. étudiants yi ñu ngi leen di tëj. Mhm. journalistes ñu leen di tëj. Mhm. médecins yi ñu ngi leen di tëj. finalement je crois que. boo moytul marchand ambulant taximan yi sax ñoo si ku si def photo Ousmane Sonko léegi ci sa kii dinañ la jàpp prison est waaw loolooy problème maa koy gis sànq ci commentaire am ku ni euh, est-ce que jotuñu tabax ay prison yu bees à ce rythme moom boo moytul dootuñu amati fu ñuy dugal ah, kenn gars yi nee nañ boo moytul sax boutiquier buy jaay Ousmane Sonko ay ravitaillement nañ ko jàpp taay yi ah ni ko yaa koy dundal candidat doy waa bu fekkee ne kay dañuy jàpp médecin mooy xam ne fa ngay fa ngay faju ñu ñu lay médecin wu ñu koy laaj lu tax nga koy faj. Mhm. loolu kay jege ne daayoon nag. xanaa kay ku mu neex nga dem faju ni am ñoo xam dinaa am ñoo xam dañu jógee fii Sénégal dem faj ji France. voilà question question question boobu sax euh, tey jii par exemple Georges Nessa bu euh, Sonko génnoon Sénégal dem France faju ji nga defee ni dañu am sañ-sañ naan dañuy dañuy euh, poser ces genre de questions ci benn clinique privée française ñemewuñ ko loolu kenn ñemewu ko wala bu nekkoon fii rek ci Ndakaaru fii am na ay cliniques yoo xamante ne ay tubaab ko loolu loolu loolu xel xalaatu ko am na clinique yoo xam ne ñu ngi fii si Dakar sax mhm. xam naa ne bon peut-être tax ne la peut-être la personnalité de maître de, de Babacar euh, Niang boobu. Mm-hmm. Euh, pose na problème parce que comme ni mu la ko waxee rek il a il a eu des antécédents avec certains euh, responsables du du du. waxal wax ji moom moo doon yoole gars yi. moom moo doon wax ni et puis koy jël di ko jaay ak yooyu noonu affaire bi. Mm-hmm. moom am na yu bëri yu mu si dénoncé. ay mm-hmm. pratiques yu bëri mu dénoncé leen naka la ñuy jaayee ay. di lee ay yeneen euh, yenn garab yeeg yenn oxygène kii oxygène affaire yooyu. Mhm. donc euh, kooku moom yàgg nañ ko yàgg nañ di ko surveiller di xaar rek mu may leen benn espace pour ñu dugg ko. Mhm. mais je crois que encore une fois le secret médical loolu kenn mënu ko violer en tout cas un médecin bu consciencieux mënul violer si secret médical la encore une fois ki nga xam ne day ñëw faju ci sa sa sa sa sanitaire. kooku amul kenn benn loolu sax finalement yabaatale mais kenn amul droit nee naa la sa xarit sax boo ko demee seet seeti xanaa hôpital boo amee xel tuuti war nga médecin mënul taxaw nga nekk yow si lu ko jot sa doom boo ko yóbbu hôpital ok mën nga ne médecin bi wax ma kii lu ko lu ko dal. mais à part ça nekkee mineur. bu nekkee mineur. Mhm. mais mag bu dem dugg sa hôpital di faju xam nga lu muy faju est est moom bëgg na sax nit ñi xam lu ko lu ko lu ko dal. Mhm. à plus forte raison nga dem ne médecin bi faw nga ne ma kii lu lu mu fi def. léegi lan la ñu bëggee am foofu mooy peut-être un délit de malade malade imaginaire comme ni ko gars yi di waxee <laughs> kii daal daf ñuy day dafa tàppale dafa dem tëdd si kii bi en complicité avec le médecin benn médecin boo xam ne daf ko bindal lii di bindal ko sax ñu c'est important de rappeler que euh, médecin ay agent assermenté nañu mais bien sûr mm-hmm. comme on le dit avec le, le fameux serment d'Hippocrate mais dañ ko dañ ko bañ ba ne xoolal te tey sax gis naa gars yoo xam ne dañoo le médecin de Ousmane Sonko un certain Cissé. oui bokkul sax ci ordre des mais gis naa tout de suite ordre des def na benn communiqué pour dire que effectivement c'est un médecin kii. est-ce que bu nekkul médecin ñema nga taxaw. di di di di di consulter nit ba di ko bindal ordonnance. Mhm. non vraiment il faut je crois qu'il faut qu'on arrête quoi sinon on risque d'arriver à point de non retour boo xam ne. Euh, cette euh, vraiment ce climat de tension là boo xam ne moom la Sénégal dund fii. Mhm. loolu daal yaakaar naa Sénégal mosul am lu mel nii. Sénégal nag am na ay président yoo xam ne amul benn président bu nekk fii Sénégal ne man mosuma jël suma adversaire toroxal ko. Mhm. mosul am. Mhm. président yëpp muy Senghor muy Abdou Diouf muy Ablaye ku nekk si ñoom am na li nga def sa adversaire dóor ko ay comment on appelle ça encore là ay ay des des des des bâtons dans pour faagaagal mais fu ñu si toll nii nii nii nii nii actuellement deux mille vingt trois moom dafay jéggi daayoo lii mos kenn mosu ko gis. Mhm. chaque jour arrestation chaque jour arrestation mais c'est trop ça. Mhm, mhm. arrestation à n'en plus finir ak euh, ay convocation yu dul jeex euh, surtout nag ci benn parti euh, mi Pastef Mame Birame est-ce que tey ñu ngi gis El Malick léegi di dugg foofu di sûreté urbaine bu ma juumul commissariat central est-ce que tey voilà rythme bii ñuy demee bu ñu si continuer Pastef dina daseer yi militant waxuma la responsable. Euh, Pamatar man dama jàpp ne dañuy def souvent amalgame entre ñiy bañ ak Pastef. Mhm. waaw waa Pastef rek ñooy bañ absolument absolument c'est vrai que ñoom seen intention fi tollu toll nii. Hmm, mhm. mooy ñëpp ñi nga xamante ne nii dañu nar a contester ci lu normalut li Macky Sall di jëm ñu teel leen a wàññi avant ñu fa yegg. Mhm. ci loolu lañ nekk nekkuñu ci leneen. Cheikh Oumar Diagne bokkul Pastef jàpp nañu ko. oui Abdou bokkul Pastef jàpp nañu ko. Pape Ndiaye suñu collègue bokkul Pastef jàpp nañu ko Dame xaw nañu koo rey bokkul Pastef donc ñoom nekkul Pastef moo leen tax a jóg en réalité. yow mii ko Pastef te euh, naroon nañ la duma. waaw ma ngoog. Mhm. Euh, donc ñoom li leen eh, yi yow fa nga bokk duma nañ <laughs> seen seen intention réellement mooy ñi nga xamante ne nii ñooy opposé wu maanaam ñiy bañ ci dëkk bi Macky Sall fexe fexe fexe ba seen kàddu dootul jib te dootuñu génn ci mbedd mi. di ko ñaxtu loolu mooy objectif am. Mm-hmm. waxoon nañ ko fi euh, euh, euh, bële paase tey jii nii jàpp nañu ne bu ñu defee manifestation ñi nga xamante ni ñoo gën a dëgër ci bañkat yi maanaam ñiy nekk au devant ñoom la ñuy xalaat xëy na ne dañ leen di jàpp pour que beneen yoon bu manifestation amee ñi gën a dëgër fit duñ ko fekkee. Mm-hmm. ñi gën a ñeme policiers yi duñ ko fekkee. Mm-hmm. loolu lañ si jublu. tout simplement bu ne bu nekkoon yoon kese yoon kese ñu ne ku fi wax loo warta wax ci dëkk bii dañ lay teg ci yoon ku fi def loo warul def ci dëkk bii dañ lay teg ci yoon bu doon tey jii nii loolu la ñu wax Pape Matar waa Bennoo ñoo fay ëpp parce que déjà ñi nekkoon Médina ay centaine de personnes yor seeni jaas yi mhm. heure bii kenn waru ci woon a nekk en liberté arme blanche moom kenn du ko doxantoo yoon di la bàyyi noonu. waaw mhm. kenn waru ci woon a nekk en liberté. Mhm. ñëpp ñi nga xamante ni dañoo génnoon foofu yor seen i jaas yi nekk ci ay pick-up. Mhm. dañ leen a war a arrêté. parce que li ñuy def mooy salfaañe la loi. kenn joxu leen droit ñu ngànnaayu ay jaas yi ne dañuy jàmmaarloog ay manifestants. loolu déjà njëkk a def lu dul yoon la mais xam nga dañu toog barki démb maa ngi suivre euh, l'autre là. Euh, ton na la Jibril Guèye. waaw. <laughs> waaw man Guèye laa koy woowee. <laughs> xaw ma xam nga xam nga xam nga xam nga lan la wax. mu ne Alioune Tine da pourquoi procureur woowu ko. mu ne kii procureur da koo war a woow pourquoi mu naan guerre civile. mu ne <coughs> kontaan naa ci li Cheikh Omar dellu ca kaso ba man damaa xamul sax lan moo taxoon mu génn yëgu ma woon ni génn na. <laughs> keppa gi comprendre Djibril War euh. nee nañu moom mooy la directeur de euh, du euh, nu mu tuddati Georges puisque sa doon na mi xam nga postam bi l'école du parti très bien ñu ne moom mooy le directeur de l'école du parti affaire oui vas-y vas mi ngi lay <laughs> mi ngi déglu kon mi ngi koy woo <laughs> mu ngi yaa ngi ñuy déranger Jibril Guère <laughs> ma ne mu ne parce que Alioune Tine nee na lii suy continue lii di am nii suy continuer mën na Sénégal mën na am guerre civile sa waay mu ne pourquoi procureur woowul Alioune ci loolu maanaam daal comme ñoom dañoo am seen procureur rek boo xamante ne nii mu ngi toog képp koo xamante ni wax nga loo xamante ni arrangé wu leen ñu yéene la kaso mm-hmm. ñu yéene la kaso moom ci boppam dem na ba ne élection jaratul muy am mu ne jaratul ñuy wax ay mandat ak ñàkk mandat puisque dëkk bi dafa nekk ci guuta na ko Macky Sall moom moo wax loolu le directeur de l'école du parti APR xam nga ne kooku eh. su ko les jeunes de son parti di déglu uh-huh. mais bu bul xaar ci ñoom leneen lu dul dérive mm-hmm. bul xaar ci ñoom leneen lu dul dérive bu nekkee ne ay euh, da nga dégg ay jeune APR ñu nekk ci wetu euh, euh, le ministre la Pape Malick Ndour di naan dañu war a taali kër dañoo nar a taali kër Ousmane Sonko. oui c'est parce que dafa léegi ñu mel ne ay ñoom Djibril War ñii di wax. nga xam ne yow dëkk bi buñ la ko buñ la ko dénkee buñ la ko dénkee ton premier souci li war a ñekk sa premier souci mooy nga fekk nga fexe nu dëkk bi dalee. Mhm. mooy nga fexe ñu dëkk ñu dëkk bi dalee yow ñu xaar ñuy xaar ci yow en tant que responsable ngay war a dalal xel yi di xool nan ngay calmer les esprits mhm. mais ñoom ku ci wax di gën a xamb taal bi di yéene nit ñi kaso comme si quelque part par justice bi moom ñoom la fi nekkal pour ñeneen yi moom lenn rek moo baax ci ñoom mooy qu'il la ferme mhm. mooy nañu noppi parce que bu nekkoon comme nu ma ko waxee sànq yoon kese kese kese la ñuy wax Fadel euh, euh, euh, Fadel Keita su demee. Fadilou Keita su demee prison. Mhm. ah du ci teg une semaine ñu ne ko Ahmed Suzanne Camara yegsi na. Mhm. moom moom mi ngi mi ngi mi ngi voilà mi ngi kon continuer di wax lu ko neex ah di wax ay nañu taal nañuy def lu ko neex te dara du ko ci fekk. ba ki démb ba manifestation yi di am. la ko continuer di wax. léegi yéen naka ngeen mënee ñu ne la constitution du Sénégal nga xam ne moo nekk ci kaw décret nekk ci kaw loi bu mu munti doon mu jóge ci code pénal ak feneen nekk ci kaw décret nekk ci kaw arrêté constitution boobu ci article am bu njëkk mooy article premier ñu ne tous les citoyens sont égaux devant la loi oui. ñu ne tous les citoyens sont égaux devant la loi léegi nit mën a wax ne nañu dem taali kër jàmbur nit mën a wax ne diw nit ak nit moo ko rey mhm. dara fekku ko ci nit ne j'espère j'espère que vous n'avez pas tué mon frère ñu jàpp dugal ci kaso bi oui ba pare ñu bëgguñoo wax ne. am na sax ku félicité woon euh, benn général di euh, voilà di def allusion ci mooru euh, ñaari gendarme yooyu wala disparition ñaari gendarme yooyu te dara fekk ko te kooku pourtant waroon nañu mën a jël enquête te ko ci kaw. ma mhm. mais xam nga justement sax mais ñaari gendarme yooyu. bu ñu waxati waxu disparition. parce que le ministre de la justice confirmé na seen décès. lay wax ni waaw. Didier Badji Ismaïla Ismaïla Madior Fall. oui bu mu demee ci Sud FM. oui il ne parlait plus de disparition il parlait de décès. ah oui alors que jusqu'à présent kooru kenn ki rek la ñu gis. Mhm. jusqu'à présent kooru kenn ki rek la ñu gis keneen kenn xamul fu mu nekk mais Ismaïla Madior Fall nee nañ ils sont ils sont décédés. tous les deux. c'est même Ismaïla Madior Fall nekk ministre de la justice moom moo wax ne Ousmane ko dafa diffamé Mame Mbaye Niang te yeggaguñu procès léegi yéen naka ngeen mën a jiite dëkk bi ci circonstances yooyu constitution ngeen salfaañe liberté nit ñi ngeen salfaañe ba pare bëgg sénégalais yi continuer yéen daal topp leen comme ay xar mhm. du ñu revendiquer du ñu ñaxtu du ñu def dara mhm. mais loolu mënul nekk Sénégal Mhm, mhm, mhm, en tout cas dina dina doy waaw dina doy non loo loolu moo fi mënul am nit ñi seen liberté il faut que ñu koy exercer surtout que euh, liberté boobu constitution moo leen ko permettre tey Macky Sall lépp lu muy def day jàpp ne c'est parce que constitution bi moo ko ko permettre bu mënee toog léegi mu ne Georges Nessa def naa le directeur c'est parce que constitution bi moo ko permettre absolument léegi constitution boobu permettre ñeneen ñi ku ci am loo xamante ni métti na la nga génn ci mbedd mi kaas ko nga ne loolu du teguñu ko fenn te li ci gën a garaaw mooy ki koy tere nit ñi mais moo fi def lu gën a lu ne weng loo xamante ni jusqu'à présent opposants yi ñeme ñoo yegg foofu sax seeni wax ay on mobiliser deux cent personnes pour dél pour le pour conquérir la palais. Mmh. il faut bien que ceux qui sont en face qu'ils comprennent que nous pouvons et nous avons les moyens politiques d'imposer notre victoire. il faut que tous ces petits apprentis sorciers endiablé du palais arrête arrête de provoquer le peuple sénégalais il faut qu'ils comprennent que nous avons les de faire descendre plus de 100 000 plus de 200 000 personnes conquérir de la République. yeggalil maam de la République. Hmm. loolu du kàddu kan. xam nga ñoom ils sont ils sont ils sont très mal placés pour joxe des leçons de morale. Hmm. moo tax ma ne. déjà ñoom dans la communication rek dañuy fausser lépp. yow hmm. déjà soo jëlee ku mel ni El euh, El Hadj Amadou Sall. oui nga teg ko ci conférence de presse.